dañ koy truqué parti au pouvoir parce que identifié wuñu électeur système électoral bi c'est dafa dafa dafa rétrograde mu amoon ay contestation électorale yu doy waar en 83 puis en 88 88 gën a metti ñu jóge ci opposition bi def ay assises comme genre seen assises yi euh, waxtaan euh, créer euh, dialogue sous l'égide de Kéba Mbaye ba ñu am consensus ci benn code électoral bu 92 donc code boobu sur le plan électoral acquis la boo xam ni acquis bu principal bu Sénégal tey jii su ñu retourné woon au statu quo ante maanaam bu ñu indi woon code boobu nga xam ni Macky Sall moo ko fi jëlee ñu tegoon ko kon tey jii kenn du fi nekk heure bi en deux mille vingt et di wax affaire audit du fichier électoral di wax ay affaire accès à la carte d'identité à la carte d'électeur nga xam ni primo votant yi dañu téye seen document de vote en deux mille vingt et kon su Macky Sall maintenant mu ñëw ci comme ni nga ko bëggee. acquis boobu la fi fekk. nga xam ni système électoral boobu ak fichier électoral boobu ak carte d'électeur yooyu euh, yi nga xam ne dañ ko jumelé ak ay carte d'identité séparée moom moo folli Abdou Diouf moo fal Ablaye Wade falaat ko moo folli Ablaye Wade fal Macky Sall donc c'est un système qui marché parce que y avait l'ONEL puis euh, en 2011 bi euh, contestation yi euh, euh, mettee ci ni Ousmane Ngom mënul nekk juge et partie au ministère de l'intérieur ñu délégué Cheikh Gueye euh, séparer euh, la direction des élections du ministère de l'intérieur mu nekk consensus alternance am ci loolu président Macky Sall ancien ministre de l'intérieur ñëw xam daaf ak système bi li fa xew yépp ñëw ni lii dama koy dindi carte d'électeur yooyu ak carte d'identité yooyu mu supprimer yépp indil ñu carte d'identité bu bees boo xam ni amul filiation sax léegi boo demee di wut extrait de casier judiciaire dañ lay binduloo sa tur yaay ak sa tur papa au verso du d'un papier pour ñoom ñu mën a xam yow ban nit nga donc amul tous les renseignements d'identification nationale kooku mu un mu ñëw dindi changer code électoral bi dugal ci ay dispositions yoo xam ne dafay viser ay nit ay L cinquante sept ay L trente et un changer constitution bi changer découpage électoral bi jalgati lépp lépp lépp lépp ba parrainage bu mujjee indi donc loolu mu nekk benn recul démocratique ci koo xam ni dund na ay années de conquête démocratique yoo xam ni sacrifice yu bëri la ci sénégal yi consentir de quatre-vingt-huit à maintenant léegi mu jël loolu yëpp daal di teg de côté mais loolu doyu ko sax pour mu am xel bu dal ni ci système électoral bi mu créé ak fichier bi nga xam ne nanguwul kenn gis ko wóoru ko sax ni mën na ci gagner ay élections il faut mu am benn filtre bu ñu tuddee parrainage gannaaw bi mu indee L31 l pour segg ay adversaires yi nga xam ni ñoom la ragal donc foofu la ñuy ñëwee ci démocratie su Macky Sall donc gis nañu épisode Karim Wade gis nañu épisode Khalifa Sall ñëpp xam nañ ni politique moo ko lal euh, pour faluwaat moo ko lal c'est-à-dire faggaagal ay adversaires politique pour maintenir au pouvoir léegi ci processus boobu la ñu nekk ba tey jii nii damay raccourcir à cause du temps euh, amuñu calendrier électoral bu ñu mën a teg loxo ay supputation rek la ñuy am on est dans la plus totale illégalité et l'inconstitutionnalité la plus totale parce que amul benn maire bu am un mandat bu valable actuellement on est en deux mille vingt et un deux mille dix neuf na euh, xam amuñu benn visibilité ci échéance électorale yi ñëw format yeeg yooyu tout ça donc fi mu nekk nii démocratie Sénégal dañ ko salfaañe man j'ai l'impression de me retrouver trente deux ans derrière ba ñuy casse identification de l'électeur euh, ak isoloir léegi ñu ngi wax jeunes yi nañ leen jox seen carte d'identité mais ils se sont permis joxe ay carte d'identité au verso desquels dañ ci bind non inscrits sur les listes électorales kon démocratie électorale abul il faut ñu wax ko tuuti parce que xam nga dëkk bu doxul d'accord loo ak ni ñu yoree sa réew am nga droit exprimer sa voix parce que euh, démocratie peuple bi moo ko moom c'est le pouvoir du peuple par le peuple peuple bi bu fekkee ne da nga confisquer baatam loolu mooy indi souvent ay violence ak ay dérapage parce que nit ñi fii am nañu patience bu toll ni ah nañu xaar ba élection ñu fajal suñu bopp loolu mooy civilité bi Sénégal am mais bu ñu demee ba ñu système électoral boobu ay dérapage lay am yeneen voie la ñu utiliser pour indi alternance wala pour faj suñu naqar wala suñu problème mais ñu xaarati élection parce que duñ ko gëm léegi nag ci contexte boobu nga instrumentaliser justice pour faggaagal ay adversaires politique j'ai cité Khalifa Sall euh, euh, Karim mais euh, affaire Ousmane Sonko bi loolu lay xeeñ moo tax nit ñi dañ ci am benn posture boo xam ne du doon posture de prudence comme ni ko abu abu bëggee mais mais posture de mise en garde la war a doon parce que quand lu ëpp tuur léegi maa ngi ciy ñëwaat parce que non seulement nekk ñu ci démocratie mais dañu nekk ci régime totalitaire maanaam ci dictature dictature la ñu commencé di ériger ak ay pexe parce que lépp li nga xam ne mooy tax ñuy sukkandiku ci démocratie dañ ko ndërmeel léegi ñu te démocratie bu ñu koy wax équilibre institution moo tax ñuy wax au-delà de la séparation des pouvoirs parce que justice euh, institution bu am solo la ci architecture démocratique parce que rôle de régulation sociale lay joué mais boo demee ba ay magistrat un Cheikh Issa Sall il est il est politicien à nguur Euh, Antoine Diom, tu waa maintenant, il est, il est politicien. Euh, le juge Dème, il démissionne. La haute administration dañ leen impliqué dans la politique lu musul am Sénégal te ñoom ñoom yoon mayu leen loolu ñuy war a instrumentaliser une telle institution pour régler des contre politiques le président de la République qui dit que am na dossier yoo xam ni ay seen ay borom bu ñu leen jàppee coow dafay bëri ñooñu du leen jàpp xanaa kon Sonko bokkul si ñooñu ban façon gis-gis la ban ban ban façon gis-gis la loolu célérité bi nga xam ni lañu la ñu wone maanaam yàkkamti ak gaawantu bi ñu wone ci dossier Ousmane Sonko enquête bi levée immunité parlementaire am ak yooyu pourquoi duñ ko wone ci ay dossiers yoo xam ni ay rapport ñoo koy ñoo koy ñoo koy établir comme inspection générale des finances pour la Prodac comme nag pour l'université et le et d'autres institutions nga xam ne ay dossiers ñu boucler la ba ba jébbal ko procureur ñu téye ko ba noppi loo xam ne dañ koy enquête xam nga léeg-léeg enquête nañ ko ba ba rapport def ba ñu def ci rapport ba jébbal ko procureur mais yooyu pourquoi duñ ci gaawantu boobu ba tey donc lii dafa am benn relance politique te dañ jëm ci dictature parce que ci wàllu expression nit ñi sax en 2019 bi ñu dëmal élection présidentielle président Macky Sall doon na tenter modifier la loi pour mën a euh, euh, euh, instrumentaliser wala pour mën a gérer limiter réseaux sociaux yi seen impact Facebook c'était la xaw fàtt naa turu numéro numéro loi bi parce que dañu waroon transformer loi bi pour ñu mën a contrôler les réseaux sociaux temps yi dégg ngeen muy attaqué wu au programme des télévisions et à certaines a une certaine presse en ligne kon loolu yëpp dafa bokk ci wàññi wàññi démocratie maanaam saxal dictature dictature nag boo boo boo boo ko déggee mooy di gouverner en dehors de la loi toujours ma ni président Macky Sall c'est président hors la loi euh, parce que ci ni ñu war a arrêté euh, euh, nu mu tuddati Ousmane Sonko honorable ak maître nee nañu ñoom comprendre ñu gendarmerie di convoqué koo xam ne dafa am immunité parlementaire mais xanaa da ngeen di fàtte ni Macky ba muy doog a falu mais ci li mu njëkk def la la bokk président Pape Diop alors président du Sénat